coalition Diomaye di ñaan yàlla lépp lu fi wax mu jëriñ askan bi mhm. jërëjëf Birame Khoudia Lo ci wuy si bi ak yitte ji nga ñu jox euh, ba saa yu ñu la woowee nga bàyyi li ngay def yëpp ñëw euh, teew euh, ñu tàmbali ak seen président parti Ousmane Sonko am na kàddu yu mu yëkkati démb bi muy dalal ñi ñu tuddee artiste projet bi kàddu yooyu nag am ñu ko déggee ay menaces xupp ci opposition bi ku mel ni Thierno Bocoum gis nañu réaction mu ne Ousmane Sonko a osé alors lan la ñu war a dégg ci pour yow euh, lancement activité politique kese la. bon euh, wax na li muy wax li mu wax daf ko teg ci dëgg teg ka ci yoon mu doon xalaat tam. Mm. xalaat bi nga xam ni parti bi moom la xalaat. waaw léegi nag bu fekkee ni Thierno Bocoum nga ni opposition bu mel na Thierno Bocoum moi je ne comprends pas dama bëggoon je voudrais qu'on m'explique Thierno Bocoum il était opposé à Macky Sall ou bien il n'était pas opposé à Macky Sall. man ma yaakaar ni opposition ba fa nekkoon ñoom dañ doon opposé wu contre ce que Macky Sall faisait aujourd'hui Ousmane Sonko toogagul ñuy ni opposition man jàppe moo leen kon ay opposants c'est des perdants c'est-à-dire mm. c'est des gens qui attendaient le deuxième tour finalement il y a pas eu de deuxième tour waxaale politique lañ tàmm malheureusement ils n'ont pas n'est-ce pas suffisamment réfléchi pour comprendre que au Sénégal on allait passer au premier tour et pourtant ñun toog nañu fu nekk wax ko donc ku amul expérience su def euh, synthèse boobu je ne pense pas que nga am expérience boo mën a critiquer ku mel na Ousmane Sonko nga xam ne véritablement il a su tirer son épingle du jeu ba egg fi mu egg du seen morom en politique. alors kàddu yi mu wax mën nañ ko déggee menace parce que euh, quand lan moo ci nekk menace je voudrais ah, bi mu ne am na ñoo xam ne léegi tey dootuñu génnati sax di wax dootuñu ti territoire bi. ah mais yow xanaa gisoo li fi xew. gisoo ñi ñu doon dóor gisoo ñi ñu doon xupp gisoo ñi ñu doon tëj injustement gisoo ñi ñu fi rey waaw loolu yëpp buñ ko leeree léegi am na ñoo xam ne dootuñu génn territoire bi fan la ñuy génne territoire bi ñu génne jàpp leen parce que dañu nekk ci loxo yoon am na ñu war a fi fekk di mbel-mbel yi waxoon naa ko loolu Ousmane Sonko laa di moi je l'ai dit j'ai am na ñu ko xam ne bu affaire bi génnee yooxu dina jibe fu ñu ko foogewul woon et defe naa ça a commencé les gens crient de partout ñëpp a ngi lu ñuy wax. lekk xaalisu askan bi doo fay impôt ñun la fayal impôt nga ñuy da nga am problème opposition bi lu ñuy wax amuñu sax ñoom euh, programme ils n'ont rien à dire aujourd'hui de toute façon su fekkee ni euh, jëm nañ leen jëm nañ ñëw xaajaluñu leen ñu bëgg indi problème parce que y a beaucoup de gens bëgg nañ ñëw ah. Hmm. ils veulent aller avec nous dans cette gouvernance la mais ñun quand même euh, il faut que ñu am lucidité bu nga xam ni véritablement ñi ñuy teg ñu xam ñan la parce que dañu dénk réew réew mi am nu doon doxee ñu bëgg. soppi doxin opposition bi euh, bi ñuy wax léegi mais Thierno Alassane je crois que c'est quelqu'un qui était avec Macky Sall hein, qui a il n'a pas su tirer son épingle du jeu mais jóge na ci Macky Sall depuis coowal. Euh, ah, coowal dara coowal dara da nga fay nekk nekk fa ba kii nga ni coowal daal di génn ndax xam nga ni kii jeexal na yu mel noonu rek laa ko jàppee ah c'est des gens du système on les connaît. mais Thierno Alassane Sall muy génn xalagul dara jeexal na tàkk xam na ni il reste deux ans wala trois ans xam nañ ko. ils ont toujours été là on les connaît et puis boo dee critiquer dañ da nga koy critiquer objectivement sur euh, n'est-ce pas un programme loolu nga koy de projet et cetera démb Ousmane Sonko a clarifié très clairement que les grandes orientations il faut les déployer pour une opération euh, opérationnalisation du projet et c'est clair wax naa ko même même je l'ai dit ici je crois euh, <laughs> moi j'ai pris quelque chose de très simple lorsqu'il y a un programme scolaire mais da nga koy opérationnaliser xam géographie la nga fay histoire fan nga fay def kii fan ngay commencer et cetera loolu rek la wax et loolu il faut ramener ça au plus petit truc pour que kii tekk ci mbedd mi comprendre que c'est clairement hein euh, <laughs> mi ngi mel na man ma ñëw ñu jox ma un programme ñu ni ma sa programme lii la ma ni woon avant may teg programme bi il faut ma xool ñi ma nekkal est-ce que am nañ niveau boobu c'est-à-dire Sénégal est-ce que egg na fu ñu ko yaakaare woon déedéet donc nañu def évaluation diagnostic bu ñu defee diagnostic ba ba pare nag dañu koy lëkkaloo ak programme bi mais programme boobu boo koy teg da nga koy opérationnaliser fu nekk nga dugal ko fa def un grand n'est-ce pas euh, une grande stratégie euh, ci fiche bu nekk bu ko defee ku nekk nga jox ko fiche de ak cahier de charge ko defee gars yi dox mais loolu ñuy tuur tëb di wax xamuñu xamuñu moo tax ñuy wax wala xam nañu ba pare bëgg opposé wu te amuñu argument. mais mun nañu xaar ay arrestation imminente dans euh, bon moi je suis pas le ministre de la justice et on ne va pas s'immiscer dans la justice Ousmane Sonko mais seen président moo wax il parle et quand il parle les gens ne comprennent pas hmm. il veut parler de la justice il est en train de constater comme moi qu'il y a eu des malversations n'oublie pas que c'est on lui rend compte de certains dossiers. Maintenant, il n'entre pas dans la quintessence de ces dossiers-là. C'est au ministre de la Justice de s'occuper de ça, c'est au, euh, pouvoir judiciaire, les magistrats de s'occuper de ça. Je ne pourrais dire qu'il y aura des arrestations, mais vu ce que nous avions l'habitude de vivre, normalement, il doit y avoir des euh, arrestations. Didier Padi, wala Philbert Samou, wala Mankabou, ñeneen mais ak ñi ñu fi rey ak yëpp ak ñi détourné suñu xaalis nga xam ni daf c'était Euh, Macky Sall xam na ni mënul niee ni am na mu ni man maa jël sama conc bi teg ko ci bon ñu koy jéem a toppandoo naan ndax du ñu teg conc déedéet ñun du ñu teg conc fenn. képp ku nga xam ni def nga loo warul def tu vas répondre devant les juridictions compétentes lu ñu la teg nga xam ni loola baa jaxate génn na tey. Mm. c'est normal parce que tëj nañ ko jeexal na dafay génn ñu koy ñaan mu amélioré comportement ba nga xam ni loolu du ci dellu. Mm. parce qu wax na ko démb Ousmane Sonko laa di Et <laughs> moi aussi, j'ai l'habitude de le dire. Je te dis que Ousmane Sonko, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais nous avons les convergences de vues sur bu waxee dafay mel na euh, compare compare compare non non non non parole mm. mais parce que loolu mooy dëgg dëgg benn la dëgg euh, ku ko mun ti wax gémmiñ gu mu munti génnee dëgg lay doon te Ousmane Sonko du jóg ci dëgg li mu wax c'est clair net et précis euh, nee na les grands les grands yi nga xam ni ñoom ñoo war a ñëw opposé wu dëgg-dëgg mais duñu dañuy yónnee ay pions wax naa ko Suzanne nee naa Suzanne su ay waay Suzanne lekkoo waay waay Suzanne naanoo waay waay Suzanne defoo dara Suzanne ngay wax ba ñu tëj la ci dara. kon dañ ko yónni. ah non yu mel noonu la c'est-à-dire au fond moom eh, ay la yéwén enseignant la bu nga xam ni wax dëgg yàlla eh, lekkul dara ca mbir ya ña lekk ba suur seen biir yi génn waaye kenn gisul ñu ngi leen kenn gisul ñu toog di dafa am dara ñu ngi toog ni pat. alors là loolu mooy problème bi <laughs> Ousmane l'a donc tout ce a dit dañ Sénégal day gis seen bopp véritablement c'était des éclaircissements par rapport